juróom benn fukk ak ñaar juddub yeesu almasi bi asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci lañu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci njàng mi weesu ci sunu gëstu ci linjil bu sell bi gisoon nanu ni yàlla yónnee woon malaakaam jibril ca réewum yawut ya ca dëkku nasaret ca benn janq bu tudd maryaama malaaka ma feeñu janq boobu ngir xamal ko ni mu naroon a ëmbe ci kàttanuk aji kawe ji jur doom ju góor tudde ko yeesu yéesu mu ngi tekki yàllaay musal noonu gisoon nanu ne jamono ji gaay yàlla yi doon séentu bu yàgg agsi woon na ramukat bi yàlla dige woon bés ba aadama awa bàkkaare mu ngi woon ci pendalu janq bi di waaja gane ci àddina tey jii nag danu fas yéene jëm kanam ci linjiil ba gis ni yéesu juddoo bala nuy dugg ci mbind mu sell mi tey xëy na war nanu waxtaan tuuti ci jamono ji almasi bi juddu woon ca jamono jooja buuru rom bi ñuy wax César Auguste moo yilifoon réew yu bare ba laawaale ca réewu yawut ya sax wante nootaangeek nguuru rom mënula fanq pexe mi yàlla amoon ngir wàcce ramukat ci àddina yàlla fasoon na yéene jëfandikoo nguuruk rom sax ngir amal waxu yonent yi ci misaal ndax mën ngeen fàttaliku waxu mise yonent yàlla bi jiitoo woon almasi bi lu toll ci juróom ñaari téeméeri at mise yëgle woon na ni almasi bi naroon juddoo ci dëkku cosaanu yonent yàlla daawuda di betlehem waaye maryaama mi naroon a jur yeesu dëkkul woon betleyem wante nasaret la nekkoon dëkk boo xam ne digganteem ak betleyem tollu woon na ci daanaka téeméeri kilomètre ak juróom fukk kon naka la almasi bi mënoon a juddoo ci betleyem ah mbokk yi ngeen ko xame daara tëwul yàlla mu ngi jooloxoom ci lépp li xew ci kaw suuf te lépp lu nar a ñëw xam na ko naka noonu dinanu jàng tey ne bi jamono ji maryaama waroon a mucc jegese buuru rom bu mag bi joxe na ndigal ne na góor ak jigéen kenn ku nekk dem ca sa dëkku maam ngir bindu fa ngir fay galak fan la maryaama waroon a dem nag ca betleyem dëkku buur bi daawuda ndaxte ci askanu daawuda la bokkoon moom ak yuusufa jëkkëram léegi nag nanu dugg ci linjilu luk saar ñaar ba gis ni yéesu almasi bi juddoo woon ca dëkku betleyem ni ko yàlla digee woon bu yàgg mbind mi nee na ca jamono jooja buur bu mag bu ñuy wax auguste joxe ndigal ne na ñépp bindu ji noonu ko nekk dem bindu ji ca sa dëkku cosaan yusufa nag daldi jóge nasaret ca diiwaanu galile jëm ca diiwaanu yude ca betleyem dëkk ba daawuda cosaano ndaxte ci askanu daawuda la bokk mu dem bindu ji ànd ak maryaama jabaram fekk booba maryaama ëmb bi ñu nekkee betleyem waxtu wa mu ware muccee aksi mu taawloo doom ju góor mu laxas ko ci ay laytaay tëral ko ca lekkukaayu jur ga ndaxte xajuño woon ca dalukaay ba faw nu taxaw fii tuuti ndax gis ngeen anam yi nga xam ne ci la almasi bi juddoo am nanu fi lu doy waar lool nag moom mi nara nekk musalkatu àddina si ak àttekatu àddina si ci géttu gu xasaw xunnu la juddoo ndaxte dalukaayu betleyem yépp a feesoon del juddu woon na ni baadoola ci anam yu suufee lool xëy na am na ñuy wax naan loolu lu doy de su yeesu dee musalkatu àddina si ak buur bi nara ate doomi aadama yépp lu tax kon judduwul ci bérébu buur ci kër buur ak ndam lu rëy ngir ñépp mënoon a xam ne mooy buuru buur yi ah mbokk yi li nu war a fàttaliku mooy lii xalaati yàlla bokkuñu ak xalaati nit te ndamu yàlla bokkul ak ndamu àddina ci lu wér juddug yéesu àndoon na ak ndam lu rëy rëy waaye lu ëpp ci doomi aadama yi ràññewuñu ko ndaxte ndamu yàlla ak ndamu àddina si dañu wuute lool ci misaal xëy na euh, gis ngeen ay borom alal yu dëkk ci kër yu rëy te rafet sol yére yu jafe tey dund bés bu set dund gu neex te ay surga di leen liggéeyal waxtu wu nekk loo yootu jot ko loo joxoñ ñu dagg loolu mooy ndamu àddina wante ndam li neex yàlla wuute na ak ndamu àddina loolu taxoon almasi bi jóge ci jataayu yàlla judduwul ci bànneex melul woon ni boroom alal yi xamul naqaru baadoole yi ak seen coono déedéet moom mi yàlla yónni ngir wàllu ci doomu aadama yi judd na ci anam yu suufe ci gétt sax naka noonu it kenn du mën a wax ne almasi bi dafa ñëw ngir musal ñi am alal rekk yàlla dafa bëgg ñépp xam bu wóor ne ramukat bi mu yónni ganesi na àddina ngir xettali si képp ku ko gëm mag ak ndaw góor ak jigéen buur ak baadola gor ak jaam noonu mbind mi nee na ndaxte yiwu sunu boroom yéesu kristu umpu leen ni mu futtee am amam ba ñàkk ngir yéen ndax ngeen woomle cig ñàkkam léegi nag nanu jëm kanam ci nettalib juddug almasi bi ndaxte li gën a neex ci nettali bi sax jàngagunu ko ndaxte ci guddi gi yéesu juddoo ca gett ga yàlla dafa yónne ay malaakaam ci ay sàmm yu daan fanaan ca tool ya wër dëkku betleyem déglu leen ni leen yàlla xamale xebaar bu baax bi jëm ci juddug almasi bi mbind mi nee fekk booba amoon na ca gox ba ay sàmm yu daan fanaan ca tool ya di wattu jur noonu benn malaakam boroom bi feeñu leen ndamu boroom bi daldi leer melax wërleen leen tiitaanga ju rëy jàpp leen waaye malaaka mi ni leen bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xibaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp tey ji ca dëkku daawuda ak musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di boroom bi ci firnde ji ngeen koy xàmmee dingeen gis liir bu ñu laxas ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur bi mu waxee loolu yeneen malaaka yu bare jóge asamaan ànd ak moom di sant yàlla naan nañu màggal yàlla ca asamaan su kawe sa te ci àddina na jàmm ji wàcc ci nit ñi mu nangu ndax yiwam bi malaaka ya delloo asamaan sàmm yi di waxante naan nanu dem boog betleyem seeti la fa xew li nu borom bi xamal ñu daldi gaawantu dem gis maryaama ak yuusufa ak liir ba ñu tëral ca lekkukaayu jur ga bi ñu leen gisee ñu daldi nettali lañu leen waxoon ci mbirum xale ba ñi dégg li sàmm yi doon wax ñépp daldi waaru lool noonu sàmm ya dellu ca seen jur di màggal yàlla di ko sant ci li ñu déggoon lépp te gis ko ndaxte lépp am na ni ko boroom bi waxe woon amin kon nag kan la yàlla jëkkoon a xamal xibaar bu baax bi nga xam ne moo di juddug almasi bi buuru rom boroom alal yi boroom diine yi déedéet du ñooñu ñépp ñi yàlla jëkkoon a yëgal xibaaru judduk almasi bi ñooy ay baadoola di ay sàmm yu suufe yu doon séentu dikkam léegi ngir àggale nettalib juddub almasi bi nanu jëm kanam ci linjiil ba gis li xewoon daanaka benn at gannaaw ba yéesu juddoo sanq dégg nanu ni yàlla yégle woon ay baadoolo juddug yeesu jaarale ko ci ay malaakaam te léegi dinanu gis ni yàlla yégale juddug almasi bi ay boroom xam-xam jaarale ko ci biddéew bu rëy te rafet bu feq ci asamaan si déglu leen li ñu bind ci linjiilu Màcca saar ñaar mbind mi nee na bi nga xamee ne yéesu juddu na ca betlehem ci diwaanu yude amoon na ay boroom xam-xam ñu jóge penku ñëw yerusalem booba ci jamonoy buur bi erod la woon ñu ne ana buur bi juddul yawut yi ndax gis nanu biddeewam ca penku te ñëw nanu ngir màggal ko bi ko erod buur ba dégge mu daldi jaaxle moom ak waa yerusalem gépp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 te biddéew ba ñu gisoon ca penku ne tell jiite leen ba àgg tiim fa xale ba nekk ba ñu gisee biddéew ba nag ñu am mbég mu rëy rëy ñu dugg ca kër ga gis xale ba ak maryaama ndeyam ñu daldi sukk di ko màggal ñu ubbi seeni boyeti alal may ko wurus ak cuuraay ak ndàbb lu xeeñ lu ñuy wax miir bi ñu ko defee yàlla artu na leen ci biir gént ñu bañ a dellu ca erod noonu ñu jaar weneen yoon ñibbi seen réew kon nag mbokki déglukat yi loolu mooy nettalib juddub almasi bi ci lu gàtt lu nu wara wax nag ci lépp li nu dégg tey xanaa judduk yéesu yeesu almasi bi amul moroom ci biir yonent yépp ak buur yépp ak niti àddina sépp mësula am kenn ku juddoo ni yeesu juddoo gis nanu tey ni yeesu almasi bi juddoo woon ci janq bu mësula ànd ak góor ni ko yonent yàlla yi yëgle woon tembe dégg nanu it ni mu juddoo ci dëkku betleyem ni ko yonent yàlla misee yëgle woon ay téeméeri téeméeri at laata yeesu di juddu sax gis nanu ni yàlla yónnee woon malaakaam ci sakariya ak maryaama ak yuusufa ngir yëgal leen ni almasi bi wara juddoo ci kàttanuk yàlla gis nanu it ni yàlla yónnee woon ay junniy junniy malaaka ca sàmm ya ngir xamal leen ne nangeen màggal yàlla ca asamaan su kawe ci guddi gi musalkat bi ngeen doon séentu bu yàgg juddu na te gis nanu tamit ni yàlla tege woon ab biddéew bu rëy ci asamaan si ngir xamal boroom xam-xam yu dëkk ca réew mu sore ne almasi bi di buuru buur yi juddu na mbokk yi lu nu war a wax ci loolu lépp nag yaakaar nanu ne ñun ñépp a déggoo ci lii ci lu jëm ci juddoom yéesu amul moroom nit mësula juddoo ni nit kii kenn la ci juddoom mënee su tëkkale ak keneen yéesu weesu na yonent mooy ki yonent yépp doon yëgle mooy almasi bi jóge asamaan mbokk yi su yéesu almasi bi nekkoon benn yonent kese ci biir yonent yu bare kon lu tax yonent yàlla yépp yëgle dikkam laata muy juddu te lu waral malaaka yi wàcc ngir màggal juddoom su yeesu dee benn yonent rekk ci biir yonent yu bare kon lu taxoon yàlla teg biddéew bu rëy ci asamaan si ngir yëgle yuddoom te lu waral juddoom ci janq itam nangeen xalaat bu baax ci loolu lépp ndaxte li yàlla bëgg mooy leeral seen xel ci lépp jërë ngeen jëf ci déglu bi ci njàng mi ñëw ndegam neex na yàlla dinanu jëm kanam ci linjiil ba gis ni yéesu almasi bi tàmbale woon liggéeyam ci kaw suuf yéen ñi ñuy déglu nu ngi leen di fàttali ne émission yi ñuy def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg a am mën nga nu bind te dinanu la wax ni ngay def ba am leen su fekkee ne itam ay téere ñoo la gënal ci mbind mu sell mi mën nga nu bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li malaakam yàlla ma waxoon sàmm ya bi mu naan bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xibaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp tey ji ca dëkku daawuda ab musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di borom